صلي يا ربنا وسلم على ما وهو للخلق رحمة وزباء كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء متى ولات أزماء الحمد لله wasalaatu wasalaam ala sayyidina muhammad wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaaril azim gannaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi ngi sant sunu ñaari wayjur mhm. waaye di def tawassul ci sunu sang bu tedd bi Mawlana Cheikh al Islam Alaaji Ibrahima Niass ñu ñaan yàlla mu dolli ñoo tàcc barkeem di ziyaare xalifa bu tedd bi mhm. Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass di ziyaare imaamul fayda Tijani muy cheikh Ahmed Tijani Aliou Cissé waaye ñu ngi ziyaare yi tamit borom gàmm gi cheikh Mouhamadou Lamine Ibrahima Niass di représentant xalifa fële ca Dakar waaye di it président Ansarul Din international di ziyaare cheikh Mahi Aliou Cissé ci mi porte parole de la fayda waaye ñu ngi ziyaare itam Cheikh Mounhamina Ibrahima Niass nga xam ne mooy le président national de Ansarul Dine ba pare di directeur institut islamique bu Alaaji Ibrahima Niass. jërëjëf yaa booy. sëriñ bi ñu ngi ziyaare njabooti baay yëpp nag. sunu yaay yu tedd yi buñ tuddee yaa roqiyata baay tudd na ñëpp ndax tey fa tabarakallah macha allah mu mag ci jigéen ñi. mag ci góor ñi di ziyaara it muqaddamu bàyyi mbokki taalibe yëpp maa ngi leen di ziyaara sama mbokki taalibe yi di ndokkeel ñëpp nag ci bés bii tey ni ko bàyyi Niass ndokkele woon boppam Hanifa li Ibrahima laaha ilaalu ñuy ndokkeel ñëpp nag kem ni bàyyi ndokkeeloon boppam di ziyaara Chérif mii tey nga njëkk a interviewé muy sëti yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi ko dafa fuuta di mu ci bàyyi ñëw dal ak ñun mhm. waaye sunu doom jële jóge ba France mhm. muy euh, Ibrahima Cardella di sunu goro mhm. ñëw gàmm si ak ñun ziyaare góor yàlla gi toog tey di taggkati yonent bi sallallahu alayhi wa bu àddu woon tey ngeen xam ne jàmbaar yi fëkk tëdd la moom it di nuyu waa Ansaarul Diin su ma tuddee Cheikh Mouhamed Niass ñii toog ci sawet tudd naa ansaarul din yëpp ziyaare sama mag ju baax ji ziyaare ñu fi toog ñëpp salaamaaleykum wa rahmatulah loolu it ñu santee ko yàlla beneen yoo nekk mm-hmm. wa amma bi neemati rabbika fa xaddis rek lañ ci jublu nag mm-hmm. Cheikh Mahi Ibrahima Niass yàlla daf ko baaxal xam nga li may wax toujours ñu ma koy bàyyi dafa baax baaxle njabootam gi yëpp baax te dañoo tabe ci maqaama te mën a dimbale seeni taalibe ñoom ñoo baax rek ñun ay taalibe lañu yoo xam ne dañuy ñaan yàlla doon taalibe ba dee ci ba dekk ci ak sunu askan yépp waaye euh, li ko waral dama ñëw bés di waxtaan ak moom ci benn situation boo xam ne moo amoon ci armeel yi ndax nawet bi dafa inondé woon waaye bi ma ñëwee nuyoo rek bala may laata toog mu ne ma nigeria am na abul fayda Ghana am na abul fayda waaye jot na senegal am umul fayda yow yaay umul fayda ma mel ni kuy gént mu répété waat ko ma wax ko li ma indi ba ma waxee ba noppi ne ko jël naa ay expert pour ñu ñëw xool nu ñuy def pour régler problème bi benn yoon ndax mënuñ at mu jot ñuy ŋàcc ndox mi ci armeel yi dañu mu buggoon daal ñu régler problème bi benn yoon mu ne ñim toogaloon lu ma leen waxoon mu ngi toppatoo ñuy dund ba bàyyi bàyyi xel sax ñi génn àdduna fañ tëdd kon tur bi ma la jox yelloo nga ko dénk la daara ji ci institut islamique nga yor leen yor bu rafet ba xol yëpp sedd daayira étudiant taalibe bàyyi bañ la ko dénkee ba tey yaa ngi ciy def loo mën mhm. ba xol yëpp sedd lim yu bare yoo xam ne ñu ngi koy santee yàlla nag mhm. waaye dama lay xamal nag ne umul fayda yekk a bare ci ci pay bi pay baay bii akaa bari umul fayda mhm. ci njabootam gi ak ci muqaddamam yi ak ci taalibe yi kenn ku ne danga joxe sa bopp jëlale naa sax sa lépp waaye sa bopp nga joxe sa ruu sa lépp ngir bëgg Cheikh Ibrahima Niass ñu ngi sant yàlla ci loolu sëriñ bi. dëgg la dëgg la alhamdulilah. wax dëgg a xam tamit Baye Niass lay yàlla def daal yaa Baye ba yàlla boole leen ba nga am lii nga am tey seen tànk yu ah. <laughs> alhamdulilah. parce que wax ci bàyyi moom lu jafe la. wër yàlla googu wër googu nga xam ne kenn du ko xam fii te kenn du ko xam fële ak jafe waaye ñun daal li ñu xam mooy yàlla xéewalal nañu ñu judd doon ay jullit alhamdulilahi rabbil alamin daal di jël tariqa tijaan ci beneen alhamdulilahi rabbil yàlla xéewalal nañu it ñu teg ñu ci siraatal mustaqim di ñu jàppale ba ñu naan ci fay du bàyyi loolu it ñu ngi ci sant yàlla bu baax di ci xuus di ci jafi jéego ba yàlla dimbale ñu ñu may ñu ci ijaaza benn ñaar ñett bu ñeent bu mujj bi wala juróom imaam Cheikh Ahmed Tidiane Cissé moo ñu ko jox muy imaamul fayda Tidiane ñëw nañ di ko ziyaare si weeru koor mu ne ma bu àjjuma buñ jullee timis ba pare nga ñëw mm-hmm. ma ñëw xaw ma lu may ooyee damaa ñëw rek ki ne woon ci biir génn rek awsa bi dugal ma te boobu saal baa ngi fees ma dugg rek mu yëkkati ijaaza bi jox ma ma di ko sante yàlla bu baax mm-hmm. si Cissé di ko ñaanal yàlla moom it fan mu gudd ak wér mm-hmm. ndax magam imam Assane Cissé moo ma mayoon biir wirdu salaatul faatiha ci sama ñaari cënq yi mu ngi bëgg a yàgg maa ngi koy sante borom bi mhm. daayira étudiant taaliba da bàyyi Cheikh Mouhamadou Nazir Ibrahima ñas moom a leen dénk ci université Dakar ci année quatre-vingt-dix yi ba nëgë ni may ànd ñoom euh, boobaak léegi ëpp na fanweeri at moom it ñu ngi koy sante yàlla bu baax mhm. Mhm. alhamdulilah kooku ma la doon présenté naan la na jël parole kenn la ci étudiants yi ingénieur la en électronique Euh, waaye moo doon sikkar sikkar su rëy soosu ngeen yéemu mm-hmm. moo doon jàng diwaan yooyu mm-hmm. ci yonent bi sallallahu alayhi doon jàng euh, bu seyru yooyu nga xam ne tey moo doon daane gaa yi ñuy jooy moom moomu moo ko doon jàng loolu yëpp ci xéewalu bàyyi lu nekk nag ngay daj ci biir fa tabarakallah macha allah ñun euh, bi ñuy bi ñuy ndaw dañ daan ñaan yàlla mel ni Cheikha Mariam Ibrahima Niass. voilà dañ daan ñaan yàlla mel ni yaa Roqeeta Baye dañ daan ñaan yàlla mel ni yaa Nafi bàyyi dañ daan ñaan yàlla mel ni taawu Baye yaa Fatimata Zahra moom nga xam ne mooy taawu borom faydu bi te fa Baye fa ko Baye jaarale woon mooy fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaarale woon Sayyidatuna Fatimatu Bintu mhm. doon doomi imaamul mursalin ku yem ni Seydina Aliou di la denc waaye mu ëlbateku moo daan toggal boppam moo daan baleel boppam moo daan raxasal boppam moo daan defal lépp boppam mhm. ba mu ñaanee baayam ne ko dama bëggoon nga utal ma ku ma jàppale ndax ku ne xam na ne ëmb di liggéey métti na mhm. di nàmpal di boot di liggéey métti na mhm. waaye baayam daf ko ne woon demal nga liggéeyal sa boroom demal nga jaamu yàlla ci sa sëy jox ko baaxiyaat saalixaat mu nekk ca ba tey moo tax fu ñu gis shérif teral ko ndax seen maama ko liggéeyoon waaye nag yaa Fatimata Zahra bàyyi mënoon koo jox ay taalibe yu ko jàppale boroom këram kër gi fees dell ak i taalibe waaye bàyyi daf ko daan liggéeyloo dafa yoo bokkoon leketu marché ku ne xam na kër ga nam toll woon ba mujj mujj mujj mujj fii nuux ndax euh, euh, liggéey liggéeyal borom këram waaye rëccuwu ko mooy yaay imaam yi tey di yi boroom xam-xam yi tey loolu ay exemple la sunu yaay yu baax yi nga xam ne la bàyyi waxoon ne na ngeen rëj-rëjloo ak góor ñi ay xaafisul xurlaa xuraan lañ samp nañ ay daara fa tabaarakallaa di mokkalloo ay góor ak jigéen amul benn doomi bàyyi booy dem këram te fekkoo fa daara xuraan wala samp na daara foo xam ne day jaabante di dem ak a ñëw Seydaan Ndeye Aida tey boo àndoon ak moom conférence ngay yéemu di nga génn ca saal ba du la mën a wax benn kàddu bu mu fa dégg ndax mu ngi téem alxuraan ji rek di yéeg ak a wàcc damit damit damit damit bu ma ko doon lim tey du jeex bàyyi mu ne alxuraan mooy karaamam dafa ñaan boromam alxuraan doon karaamam doom ju mu am tari na alxuraan sët bu mu am tari na alxuraan taalibeem yi sax bu ñu jéemee tuuti rek mokkal ndax ñaanam gu mag googu mu ñaanoon ci alxuraan nañu wettali ko alxuraan te roy alxuraan alxuraan du jàng rek mais jëfe la mm-hmm. xoolal yi toogaay yi muuraay yu sell jigéen dafa am nu mu war a mel sallallahu alayhi wa sallam al mar'u hiya al madrasatul ula fi l mooy école bi njëkk ci doomu aadama mu ne eh, bunt bi nga xam ne moom la doomu aadama yi di jaar di gane si àdduna biiram nekk magasin bi nga xam ne moom la yàlla di defaree nit dënnam nekk dund bi nga xam ne moom la nit di njëkk a dundee ay fanam yu njëkk maa ngi ziyaare waa octobre rose bu ma tuddee macha allah dënn dinaa ne na jigéen ñi góorgóorlu dem saytu ji seen ween yi saytu seen bopp mhm. làmb seen bopp palpe ko mhm. xoolaat seen bopp ndax jamonoy octobre lañ toll muy octobre rose nañ ci mhm. bàyyi seen xel waaye di wax ne jigéen la ma journaliste ba laajoon danaa la ko tontu tuuti mu ne noo mën a nekkee yaay doon soxna ndax am nga borom kër doon muqaddam di yar ay taalibe ba pare ëlbatiku yow doon chef d'entreprise di diriger sa entreprise ba pare doon femme de développement di diriger di accompagner jigéen ñi ma ne ko jigéen ñëpp muqaddam lañ kuy muqaddam mooy yarkat jigéen ñi ñooy jur ñooy yar kon loolu yomb na firi jigéen ñëpp ay économiste lañ ñoom ngay xëy suba jox leen kayitu junne ñu togg ci ndekki togg ci añ togg ci reer jënd ci saabu fóot yére yi taal ci cuuraay kër gi di xeeñ defar kër gi ba mu ne booy boo yegsee ñu wax la wax ju neex taajal la lu neex sa xol di neex loolu mooy rolu jigéen kon jigéen ñëpp ay muqaddam lañ jigéen ñëpp ay économiste lañ ñu xam ne daf dañu am benn complicité bu nekk seen diggante ak seen borom journaliste ba nee na ma euh, lislaam dafa suufeel jigéen lan nga ci xalaat ndax nee na jigéen du doon imaam mm-hmm. loolu loo ci xalaat mën na ko jig ak lislaam dafa teral jigéen dafa suturaal jigéen mm-hmm. l'islam alxuraan moo njëkk a ñëw ne innal muslimina wal muslimaati wal muminina wal muminaati wal qaanitina wal qaanit ba aaya ba jeex fukki baat yoo xam ne bu tudd góor na jigéen mu ne ci def ñoo yem képp pay kon parité jigéen l'islam moo njëkk a def waaye dafa diviser rôle yi mhm. division boobu mooy lan ana imam ñu ne dafay jafte mu ngay dafa fanaana miir ak a wëcc moo tax mënul ñëw julli jiite si ana imaam da doon matu biig fanaani hôpital moo tax jiite siwul ana imaam doomam moo feebar moo tax mun da ñëw ana imaam dafa indisposé biig moo tax mun da julli si tey waaye ji eh, lislaam dafa suturaal jigéen kon nañ jox ku nekk rolam xam liggéeyam ñu xam ne bu ñu nax bu ñu nangu ñu nax ñu toj suñu bopp gëm loo ñu lu gëm amul mm-hmm. lii moo jaadu macha muuraay bii toogaay bii jaamu yàlla gii moo jaadu waaye leneen lu ñu defloo rek ñu ñuy sànq mm-hmm. ñoom sax dañoo réer mm-hmm. dem nañ ba jaaxle ci seen bopp dangay xool réew mu am nit France laajal kii góor yàlla gi doon wax léegi français la ba ma ñëwee lu ma njëkk a jooytu maman dama jaaxle sama jabar bi muy dugg fii da doon muuru da doon musóoru léegi buy liggéey day obligé mu réeku parce que mayetuñ ko mayuñ ko ndigal waaw naka nga mën a permettre góor nga ne ko mën nga sëy góor jigéen am nga droit sëy jigéen ku ne am na ci droit ñoom ci ñoom mm-hmm. ñu ne dëkk ba layit la yow chrétien bi am nga droit sol sa sol sa sol sa yére euh, yow sœur bi bon sœur bi am nga droit solu muuru parce que tu es une bonne yow ñu ne juif bi am nga droit sol sa yére sol sa koppati parce que juif nga ñu ne musulman bi amuloo droit muuru loolu fan lañ ko teg loolu lu jar a xool la lu jar a bàyyi xel la mhm. yi ñuy mirwaate dara lu ci dëgg li ñu nekk mooy dëgg yàlla mooy dëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na jigéen bu jullee waxtu yu juróom or weeri koor moytul boppam njaaloo dégg ndigali jëkkëram mu ne dinañ ko ubbil bépp bunti àjjana ne ko duggal ci bu la neex jigéen moo am loolu góor góor la yàlla sëyloo góor la yàlla wax dundalal dëkkalal waddal fajal bu feebaree fajal góor la ko yàlla sas kon góor la yàlla sëyloo yéen liñ leen sas lu yomb la kon nag góorgóorlu moo ñu war yal nañu yàlla teg ci siraatal mustaqim jàppandal suñuy mbir zaayiran wa baatinan ñi amagul borom kër yal na leen ko yàlla may ñi am ba noppi yal na yàlla saxal leen ci te may leen njaboot gu jub te barkeel yàlla rafetal suñu àdduna rafetal suñu àllaaxira barkeel suñu yëngatu zaayiran wa baatinan yëkkatil ahmaduna ya rasulallah ahmaduna sayyiduna muhammadu rasulullah yonen ahmaduna la sayyiduna muhammad hmm. habibullahi safiyullahi ya rasulallahi ahmaduna aminullahi najiyullahi ahmaduna sayduna muhammad xayrul xalqi sayduna muhammad xayrul rusli sayduna muhammad endal kulli ahmaduna ya rasulallah kenn du yontu yàlla muhammad moo tax Baay Ñas nee na ya rasulallahi madhu nabil mustafa yuzika xurban wa shafa fa huwa dalilu muxtafa bi nee na yaa rasulallahi fa huwa dalilu muxtafa faaqal baraya sarafa badrul huda bahrul nada tibbul wara simul ada minhu shifa minhu rada fa sumu tawra wa sifa bàyyi nee na sayyiduna muhammad wal habibul mujtaba هو الحبيب المجتبى يا رسول الله هو الحبيب المجتبى هو الذي من قد هباه الحب أولاه الحب بيننا سيدنا محمد أكرم به ما أسرفا يا رسول الله موي ذاك النبي العاصمي يا رسول الله موي ذاك صف العام زمامي ذاك الرسول المدري ذاك علي هرتي عامي ذاك رفيع عون المنيه يا رسول الله موي عين الكمال عين الجمال عين النوال عين السلام خنب الحلال خنب الدلال سيدنا محمد موي سيدنا محمد سيد المرسلين mursalina saydi mujahidina saydina muhammad mooy saydi shahidina mooy saydi qaashiina mooy saydi taa'iina mooy saydi taa'ibina ya rasulallahi mooy saydi abidina saydi hamidina kenn du muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam salli ya rabbana wa zalim alama wa huwa lil khalqi rahmatu wa sifaa كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء متى ولات زماء